même dox ah, na yaa may dox la boo xamante ni du ñu ñibbi ah ay bagages nag bon. mbokku intrant Dakar people yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar nuyu suñu mbokk intrant bu dañu bàyyi xel saa su nekk mbégte la ñu am suñ war a jàkkaarloog yéen ci chaîne bi ngeen tànn seen bopp muy Dakar people comme ni ñu koy defee tey nag ñëw nañ fi nga xamante ne Aïcha mooy Mbour. fekk fi koo xamante ni suñu xarit la suñu frère la muy Karamba Messi ndax Karamba Aïcha dañ ko namoon lool ñu gëj ko gis lool mu doon toj àdduna macha allah xale yi bëgg di ko topp ko a gis xamuñ ci lan la nekk Karamba gëj na ko gis mais ba tey li mu doon def da koo mën lool tey nag moom lañ fekk ne mooy Mbour dañ waxtaan moom ci a a génn bi loolu lépp Dakar People ngeen ciy àndal nekk Aïcha laa ci àndal moo ne ci caméra bi Aya moo ne ci waxukaay bi dama koy nuyu Karamba Messi ah ñu continuer après waxtaan bi. waaw ñu ngi ziar di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn xam di nuyu ñëpp daal kilifa yeeg ñi nga xamante ne tey ñii suñu mag lañ ñii suñu papa lañ ñii suñuy kilifa lañ ñu ngi nuyu ñëpp. di nuyu Sénégal bàyyiwuñu kenn di nuyu suñu kilifa yëpp di ñaan yàlla jàll def jàmm ci réew mi. Mm-hmm. Mm-hmm. Messi. Messi ñenn ñi dañoo yaakaar Messi footballeur la du Messi footballeur de Messi turu Messi ab jinne moo ma tudde Messi moom moo ma tudde Messi mu ne bu la kenn ooyo tur bi ñëpp nañ lay ooyo Messi Messi bi jàppee ko comme Messi footballeur da ko jàppe comme exemple nga ni yenanti jinne yi wala kuy def lu yéem gars yi wala kuy def loo xamante ne tey lu extra loo xamante ne tey moom bi mu xoolee si xaymaa sataligam yëpp dañu ma normalement Messi lañ la war di oowee te bis ni ko tey nañ lay oowee Messi looloo indi turu Messi bi. Mhm. Mhm. mais euh, gars yi dañ la bëgg loolu ñu gëj la gis nga gëj a feeñ dañ daan gis Karamba Messi di ko gisee écran yi muy def ful ñu jékki-jékki gisatuñ la lan moo taxoon gisatuñ la defuñu non bi àdduna mënoo nekk di génn chaque jour loolu amul fen mhm. kenn mënul dëkk si chaque jours di génn di génn di génn man su ma génnee rek dafa am lu ma génnee. man su ma génne rek dafa am lu ma génne léegi maa wàññi média yi wàññi yenn vidéo yi wàññi yu bëri parce que àdduna ñu bëri suñ la yabee rek si média yi lañ la yabe bëri na ñoo xam ne ku la si yab si média yi la la yabe su waxee ak yow média moo tax mu wax ak yow comme dama dem ba xam ne lii maanaam bu yàggee sa da ñàkk fayda loolu moo tax ma wàññi média mais ma média ba tey maa ngi si média yi mais dama ko wàññi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu lay li tax ñu may ooyo borom jinne yi moo 2018 laa commencé jàpp jinne ba 2024 lu ñu ne 2024 2018 laa commencé jàpp ay jinne ba 2024 lëmbe na àdduna dugal si internet nga xool Karamba ñaata jinne la mos a jàpp si lu nekk si internet te li nekkul si internet moo ëpp mhm. waaw. mais kar kar noo jàppee jinne man kar loolu jaaxal na ma de. man ni may jàppee jinne lan la. loolu du wax jëf la. dama ko wone wone wone wone wone ba safatul kenn moo tax ma wàññi vidéo yi parce que tey bokk naa si sëriñ yi njëkk Sénégal di liggéey di def en direct di wane seen liggéey ñëpp di ko seetaan man bokk naa sëriñ yooyu. parce que Sénégal dafa bëri ñoo xam ne tey dañuy wax rek mais duñ def dara tey yow mi yàlla dénk nga ne da def kon li ngay def soo ko ñemee waroo ko nëbb. looloo waroon may wane samay vidéo boo duggee internet lu mu bon bon nga fekk fu lu ëpp mille mille vidéo yoo xam ne ñaata doomu aadama la Karamba faj fu may fësalati boobu si internet wala fu may fu may nekk di kiiwati déedéet mhm. xam nga lu mooy xaar fu mu toll nii mhm. bës rek bés ak dal bés bàyyi la wàcc ak dal lu taxaw sama kanam ñu def lu ñu war a def yàlla def lu ñu war a def ñu dem defiwaat leneen te kenn duñu xamal dara mhm. parce que àdduna boo nekkee si benn affaire di si liggéey war nga def lu la àdduna bi xamee man damaa def loo xamante ni àdduna bi dañ maa xam. damaa def loo xam ni Sénégal yëpp dañ ma xam monde bi laay wax ñëpp xam nañ Karamba lan moo tax ñu xam ma soit li may liggéey la moo xam si football la moo xam si faj la moo xam si leneen lu mu mënti doon mais en tout cas àdduna yëpp xam nañ Karamba li ko li ko yàlla may ak li mu capable leneen lu nit wax wala leneen lu nit def soxor la ñun lii moo ñu ñor parce que lii moo ñuy dundal àll bi culture bii nii. lii moo nekk suñu xol mooy suñu cosaan moom lañ doon te si la ñuy ba heure bu ñu ko yàlla dogalee. Mhm. boo gisee ñuy critiquer karamba parce que am na ci ñoo xam dañ naan xam nga nit ku nekk ak sa xalaat xam nga nit ku nekk ak sa xalaat gis nga adduna métier bu amul critiquer du dem fen métier yu baaxul wala métier yi nga xamante ne dara nekku fa kenn critiquer li may def tey jii ngay gis nii si faj laa jóge lan moo la leer ni jàpp naa jinne wala jàpp ma dëmm démb liggéeyu ma si faj laa jóge lan moo la leer ni jàpp naa jinne wala jàpp ma dëmm man chaque jour maa ngi liggéey chaque jour maa ngi def li ma war def lépp lu ma war maa ngi koy def ni ma daan doxale tey laa daa doxal mais comme ñenn ñi liñ tàmmoon chaque jour ak vidéo bi leen karamba di génneel chaque ak vidéo bi leen karamba di bi ma demee ba mu commencé am ay détails ñii di si wax ay waxi sew ñii di wax ay waxi kii si laa wàññi vidéo yi vidéo dugg damay liggéey bu vidéo duggul damay liggéey yaa ngi dégg tey liggéey bi doonu sa ay vidéo doonul dara sama bopp bi la te bala ngaa gënoon a xam ne si sama bopp bi la lan lañ nekk émission lañ nekk en direct su la neexee fi ñu toog di def émission bi tey sa téléphone am nga compte TikTok wala nga am compte YouTube bu la neexee nga def en direct en direct bu la neexee fi ñu toog nii nga def en direct live nga xool koo xamante ne tey dafa daanu wala jinne moo ko solo ma faj ko fii ma toog nii bala ñoo jog si émission bi moo leen lan mooy xam-xam loolu laa soxla mhm. yéenay xool yéenay tànn leen neex bu leen neexee tey jii barki Serigne Fallou Mbacké fii ma toog di def émission xool leen ku leen neex bu leen neexee ngeen def ko live boo leen gisee ku daanu wala koo xamante ne tey am na lu ko dal fii ma toog laa koy faje nii fii ma toog te du ma jóg fii ma toog si àll bi fii nii appel vidéo en direct may naa leen ko léegi léegi bu dee bu la neexee nga def live direct sa téléphone mhm. waaw ayca am na solo masala mais Karamba wàllum rab rab ba heure amul nit ban heure lay lekk. nit ku nekk ak heure bi ngay lekk. yow boo xëyee ban heure ngay lekk. Uh-huh. boo xëyee suba gi looy def. dangay da man su ma xëyee du ma ndékki. laaj ko ñu may àndal ñaata weer laay toog duma ma bu weesoo ndékki yow looy defaat añ. man du añ. laaj ko ñu may àndal. mais kon yow dundee. li may dundee turu yàlla laay dundee mais damay lekk sama lekk nag lu si ëpp guddi la man sama lekk yëpp lu si ëpp guddi la moo tax man la ñun ña bokkuñu heure bu ñuy lekk nit ku nekk ak ni muy doxee. no damay xiif comme ñëpp. waaw doo lekk dama dul xëy di xiif yenn xiif yi wala benn affaire parce que dama ko xas ba tàmm. Mhm. lu ma tàmm la man su ma xëyee su mu amee kafe rek jarul may lekk dara mhm. mais adduna bi dama lay wax ne àdduna yàlla moo ko moom. Mhm. wala xamoo loolu. àdduna yàllaa ko moom te yàlla moo ëpp doole si àdduna. yàlla moo ëpp doole si àdduna yàlla mooy xool lu ko neex mu defal ko doomu aadama yàlla mooy xool lu ko neex mu dénk ko doomu aadama Sénégal xam nga lu xam ka média yi ngay gis nii yow booy se booy feeñ ci média yi rek dañ naan nice quoi lépp wala kii affaire bi doonatul ay média parce que da ngay toog man boo gisee lu tax ma gën a raar. média bi damay toog ma dégg ñu ne comme gars yi laay dégg ñu wax quoi ñu naan sëriñu xam dara yi wala yi man dara yi kenn gisu leen si média sëriñu tiktok yi ngay gis wala benn affaire xamuñu dara commencé comme genre détail yooyu bokk na si lu ma gën a metti loolu bokk na si lu tax bëggatuma sax di feeñ yenn fës yi si internet chaque jour maa ngi liggéey chaque jour maa ngi def li ma war a def ñi ma xas ba xam xam nañ ma ba pare mhm. bu la neexee as mën nga ko boo ko uyu da dem na la rek mhm. waaw mhm. chaque jour maa ngi nekk si lu ma nekk mais awlu média man dama ko wàññee parce que man média fayu ma média fayu ma kompaloowu ma ak journaliste néewu ma kenn kaa ñu def lii man lépp lu ma nit mënti xamee si àdduna sama xam-xam bii la ak sama bopp bi ak si jubal ran bi dem sama yoon hmm. waaw mais Karamba dañ doon gis euh, bu ñëwee sa kër dañoo gis sa kër gi fees dell ak ay nit dem nañ léegi ba gisatuñ léegi nit ñi nga xam ne ñoo daan ñëw ci yow pourquoi lan amu fa dañ naan kër gi nga doon nekk lañ la gisatul ngay dem foo ma fekk sama kër gu bees gi foo leen ma def fu ma nit ñi daan fekk waaw foofu da xam nga da ne fi nga luye woon léegi damaa tëju nekk sama ruq li tax ma nekk sama ruq mooy bi ma nit ñiy gis si internet aw ma kër damay téye téye nga rek aw ma kër kër jàmbur laa nekk chaque fin de mois ñu ma location diggante bi ma toog raar internet si laa jënd kër si laa tabax kër si laa développe gis nga ma damay karole sama kër maanaam liggéey bi léegi moo doonatul wax da ngay jëf jëf bi lan la tey ngay génn si internet di fës di def fii daw fii xamoo di daw daw daw doy boo bëgg a dee te boo gestoo doo gis gaynde dàq la doo gis xaj dàq la comprendre nga te amoo dara nga daj lu nekk léegi man maa toog ni tecc concentré sama bopp depuis si 2023 bi ba ñu dugg vingt 2024 bi si laa jënd kër si laa tabax kër bay karole bay yëkkatiwaat sama kër si nëbbatu bi ma nëbbatu yàlla na yokk mhm. waaw am na solo macha allah tey nag nee naa la ki ñu fekk si tey fii nga xamante ne mooy Mbour muy Karamba la Messi karambaa borom jinne yi nee na nag wax dëgg yàlla ay Aïcha man moom xaw naa ragal sax. yow uh-huh. sëriñ boo mënti xam sëriñ boo mënti xam sëriñ boo mënti xam waxawu ko nag pour uh, xeeb nit wala ba sëriñ boo mënti xam maa ko man uh-huh. sëriñ boo mënti xam yow sëriñ boo mënti xam muy dox si li may dox maa ko man bu ñëwee fii sama taalibe lay doon. Messi si xam-xam. si yàlla ak si jinne yi jinew fa jinew bemba karamba karamba de jinew fa jinew bemba ni basili dini joli di karamba mbake sansa karamba mbake sansa karamba tu bismillah tu bismillah sante kumre ani womte kumre karamba ni basili dini joli di karamba mbake sansa karamba sama barke maam karamba barke borom ñetti guyi billahi wallahi tallahi sëriñ boo yaakaar muy dox si wàllu mystique kam lii may dox sama dal moo ko man maa ko dañu gis nga def pause rek sëriñ ñu bëri ñu ngi commencé di génn naan maay borom jinne yi maay faj jinne yi te ñu bëri dañuy roy ci Karamba man dama ñëw senegal indi si wàllu xam-xam lu kenn indiwul. Mhm. senegal bi nga juddoo ba toll ni nga tol si kaw njëkk a gis ab sëriñ buy faj di def léegi léegi te boo ko xoolee day tentir bopp bi kal la Karamba Sénégal ban sëriñ nga gis tey muy sol jiinam sol tisetam sol lëf sol kasketam takk ay training te li mu bëgg a def da koy def kàlla karamba kon maanaam ñi may roy Sénégal ay sëriñ ñoo bari maanaam état bi ñu toll man dama ko dépassé parce que dama maa doonatuma boobu xale dëgg la du ma mag mais doonatuma boobu xale te loo gën di màgg xel mi day gën di pànk étape boobu ma nekkoon étape la romb naa ko maa ngi si beneen étape. mais sëriñ yaa ci naan ñi nekk xale yow kese yaa ciy def li ngay def. voilà. Ah, da nga naan sey say morom yow yow yaa ciy def li ngay def lu leere noon te ku ko weddi gën na génn ay preuve am nga dem seeti ko mu woon lay preuve am nga laaj ma samay preuve xam nga la mooy bañ nga dem seeti nit mu génn ay preuve am yow nga dem ta waaw te da ngay génnee la xam ak kayit. waaw tubaab preuve la xam ak kayit mhm. man lépp lu may def si preuve laay liggéey lépp lu mu wax si cadre mystique. su ma jógee fii boo tàppee sa téléphone si internet da nga koy seetaan en direct xam-xam doonatul ay wax man dama wax a wax saaga ndeya saaga ndey ba ñi ma respecté woon sax ñenn ñi xam ma damaa wàññ yooyu daal moo moo tax ma gën a raar internet man su ma demee ba àdduna monde bi yëpp di ma coow monde monde ñaata nit ñoo bëgg a ñaata nit ñooy liggéey si mystique te pourtant kenn xamu leen man àdduna bi ñu ma ban dëkk ngay dugg fii fu fu fu ma xamul fan ban dëkk ngay dugg laajte ndax xam ngeen Karamba ñun la xamuñu la ban dëkk la amul man gisuma ko boobu gisuma ko fu ma dem damay am problème wala damay nëbbatu ma xool nu ma def ba mën a dem sama yoon mais fu ma dem doomu aadama yi diwa nga neeri dem nag yàlla moo koy def si doomu aadama. Mhm. ay dañ daan gis ngay faj ba pare di bàkku di neexal affaire yi dañu namm loolu ci te gën waaw moo tax man la loo gën di màgg xel mi day gën di pànk. nee naa dama yàgg di daw sama kër laa daan war a faje di daw di daw ba tuur ya te su ma gëstoo du gis xaj du ma gis gaynde dara dàquma loolu dama see toll woon pour wane sama bopp pour àdduna bi xam ma àdduna bi léegi dem nañ ba xam ma te bi may def loolu tey awma benn projet ma si dara damaa nekk sama aal nekk samay dimension di wone pour ñun ñi xam ma wane naa li tax ngeen xam ma ba yéen ñii fi ñëw nii looloo tax ngeen xam ma damay toll foo xam ne dama naan tekk nekk si benn étape grandeur. Mhm. damaa toll si étape grandeur sama niveau dépassé na fii fi ngay laaj. la fekk nii déggali ma la waaw moo tax ma bëggoon ñu gën a xuus si biir ñaay bi. Mhm. yow li nga may laaj sama niveau dépassé na loolu man Karamba le Messi. billaahi wallaahi mhm. le Messi. ay ci am na solo mais kar dañuy ñëw ci li nga xamante ne nii mooy agression yi bari na ci réew mi réew mi noo gisee jamono ji réew mi. réew mi liñ ci def day laaj deret te des na yeneen deret yuy tuuru mm. barke sëñ Fallou Mbacke wóor na Serigne Fallou Mbacke des na yeneen deret yu war a tuuru jaxratan mm. des na yeneen deret yu war a tuuru mm. waaw des na yeneen deret yu war a tuuru te li tax loolu di am tay affaire jinne yi si la bokk mais dafa bëri ñoo xamante ne tey ñu ngi nekk Sénégal ñoom ñoo koy déclenché ndax bëgg pouvoir ñoom ñoo koy déclenché ndax bëgg ku leen dégg ñoom ñoo koy déclenché ndax bëgg alalu àdduna ñoom ñoo koy déclenché ndax bëgg seen tur àgg foo xamante ne tey mosu fa àgg. looloo war a indi yi ngay gis deret ju bari jii di tuuru Sénégal yëpp doomu réew mi ñoo koy def. danga naan yow jaralu la ko. ñaata nit lañu rey Sénégal ñaata nit lañ rey Sénégal si loo xam ne tey bëgg pouvoir ñaata nit lañ rey Sénégal si loo xamante ne tey bëggu nguur ñaata nit lañ rey Sénégal si loo xamante ne tey teguñu ko fenn fenn fenn fenn lu dul jàpp seen doomu réew di ko def ñaawteef yoo xamante ne tey kenn kenn mënu si kenn mënu si kii daal parce que maa ngi gis si télé bi maa ngi gis koo xamante ne tey dañ ko téye jamati ko xaw ma am na xaw ma amul. xaw ma Maimouna Ndour waaw su dee loolu am na doonul loo xamante ne tey dafa rafet gis nga Sénégal dañu war a boole seen doole Sénégal dañu war a boole seen lépp mais ni ma gis ñuy doxee nii loolu jëmalewul réew mi kanam te déet. sëy yi gis nañ léegi karamba bari na en tant que koo xam ne porte de voix waaw loolu yàlla yàlla moo ko def waaw loolu noonu ngay gis noonu maanaam xam loolu nan laa la ko mën a waxale nu ma ko man nan laa ko mën a waxe sax xam nga bis boo xëyee est-ce xam ne fii nga toog nii yow di dégg dékk sa micro am na ñuy juddu am na walla amul fii nga may dékk micro am na ñuy juddu fii nga may dékk micro bi nii ñuy wax nii am na ñuy dee noonu la demee tey bu ñii bu ñuy tas nii am na ñoo xamante ne ñu ngi takk am na ñoo xam ne nii ñuy wax micro si mariage lañ nekk de ñu ngay ceetal nii ngay wax nii boo ko gëstu woon am na ñoo xam ne ñu ngi xuloo seen biir kër pour tas dem voilà. ñëw li nga xam mooy wàllum politique bi gis nañ euh, Sénégal jaxasoo na benn xel dalatul en tant que koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, fajkat la en tant que koo day gis ci réew mi lu bëree bëri te yàgg nga ñoo wax ñuy gis tey réew mi nu mu jaxasoo en tant que Sonko andi Sonko andi Macky Sall. <laughs> non non li may ree ko xam quoi. waaw parce que politiciens yi ngay gis nii wóor na Serigne Fallou Mbacké politiciens yi ngay gis nii fii laa la ko waxee de barki Serigne Fallou Mbacké bëri na si ñoo xamante ne dañuy yàq seen xaalis. bëri na si ñoo xamante ne tey ñu ngi bëgg a yóotu réew mi ñu ngi bëgg def benn affaire mais dañuy seen xaalis lañuy ñuy yàq duñ dem fen duñ jël dara te gis naa ko si ay politiciens yu bëri ñoo xamante ne tey. ñoom ñi ngi taxaw di xeex Ousmane Sonko wala benn affaire ñi ñu ngi jël seen ñi am na ñoo xam ñi ngi jël seen milliards di ko financé te barki sëriñ Fallou Mbacké dara duñ ko am duñ am dara. loolu li si yàlla def bind na ko ba pare ni teg ko nii te loolu far force day am mhm. waaw. mais ndax dina am élection. bañ a am la moo tax élection day am. élection day am Sénégal far foos si mu neex ak mu naqare day am far foos mais dina am bruit dina am bruit dina am ay bruit dina am bruit boo xam ne ay jàppal bàyyil jàppal bàyyil jàppal kii war woon def li ay maanaam mënuma la wax lépp daal mais dina am dina am bruit bu rëy incha allahu rabbi te yuuxu dina jóge foo xamante bëri na ñu ko fa fooge xam nga dañ naan yuuxu dina jóge fuñ ko foogewul mais yuuxu bii dina jóge foo xam ne bëri nañu ñu ko fooge sa élection yi yuuxu dina jóge foo xam ne bëri na ñu ko fa fooge olof danaan yuuxu dina jóge fuñ ko foogewul mais bii fiñ ko fooge lay jóge far fas day am kenn mënu si dara ngay jin ngay jinne mënoo si dara ngay sëriñ mënoo si dara yàlla moo ko validé far fos day am Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. day am Sénégal te damay jàll benn message gis nga guddi yi ñu toll nii mhm. képp ku bëgg jàmm Sénégal mhm. na nga tey si affaire Ousmane Sonko képp koo xamante ne tey bëgg nga jàmm Sénégal na nga tey si affaire Ousmane Sonko parce que dama see xam lu bari mhm. gis si lu bari gis gis lu baree baree bari yoo xamante ne tey mënuma ko wax moo tax ma ne la yuuxu dina jóge fuñ ko foogee dégg nga olof boobu li ma la wax dégg nga ko wala déggoo ko yuuxu dina jóge fiñ ko foogee baat bii dama woo gisee ma koy bamtu di ko bamtuwaat di ko bamtuwaat parce que li may wax bu bu ko olof déggee bu ko olof déggee dina xam li may wax lan la. Sonko waaw. côté Sonko nga yow. Sonko. ayca Messi dañ doon gis uh, Coupe d'Afrique bi dañ la daan gis nga ñëw def jël say matuwaay mais dañu gis Coupe d'Afrique bi gisuñu la. Coupe d'Afrique bi. gisuñu la <laughs> man damay liggéey rek. Uh-huh. caga xamul góor gu rafet ku koy fay xaalis rek la xam. Uh-huh. Coupe d'Afrique bi damay liggéey ñi ma fay xaalis liggéeyal naa leen uh-huh. waaw. dama koo def. ñu dégg ma liñ yooyu xam nga tey question kii bi nga ma laaj sax doonu loo xam ne bëggaat naa si développé parce que dama ci wax waxati si waxati si man li ma def Sénégal si équipe nationale bu Sénégal ñëpp xam nañ ko ñëpp gis nañ ko ku tàppe si internet di nga ko gis mais boo si toppee di communiquer di communiquer waat day mel ni wala benn affaire man tey état Sénégal moo ma ameel xaalis tey équipe nationale bu Sénégal moo ma ameel xaalis équipe nationale bu Sénégal ñoom ñoo ameel. man amee lu ma leen dara lépp lu ma warloo ak ñoom def naa ko te mosuñu maa fay dërëm comme mosuñu maa fay dërëm man de li ma si jotoon a def ñu ma ko delloo woon ma sant yàlla suñu borom waaw. waxatuma lu ma defal kenn lu ma defal sama bopp laay wax guddi yu ñu toll nii li ma defal nit ñi kay laay wax dinañ ma ko fay wala duñ ma ko fay man waxatuma lu ma defal kenn de man lu ma defal sama bopp laay wax li ma defal nit ñi kay laay laajte ndax nit ñi dinañ ma ko fay wala duñ ma ko fay mais waxatuma lu ma defal kenn. merci. Karamba damay ñëwaat ci beneen euh, rab bi sànq maa ngi la ko mais dañ ko xaw a off dama euh, dékkoon benn micro benn maara mu ne rab buy dugg ci yow timis lay dugg ci yaw sànq maa la nga ne rab xaw ma lan lay kooku nee rab timis lay dugg ci yow boo demee nee ko Karamba nee na da ngay fen dañ laa yóbbande wala wala wala lan la kooku soo demee nee ko Karamba nee na waxoo dëgg da ngay fen soo bëggee ma dindi masque bi dindi la ndax mu xàmmee ma. sëriñ boobu la yebal. teel ma sëriñ boobu la yebal mu ne la rab timis ba timis lay dugg nit soo demee nee ko waxoo dëgg da ngay fen rab bu dee timis lay dugg nit lan moo tax nit di daanu bëccëg lan moo tax nit dem liggéeyi fa mu liggéeyi daanoo fa man dama gis lu ne rab amul heure bu muy dugg nit rab heure bu ne mën na ko dugg nit rab rab heure bu ne mën na ko dugg nit mën na ko dugg nit guddi gi muy wax rab mën na ko dugg nit suba rab mën na ko dugg nit fajar rab amul heure kam heure bu nit mën a jot tànkam dox nii rek heure bu nit mën a yëkkat sa tànk dox rek xamal ne heure boobu rab mën na ko dugg nit rab amul heure moo tax man la sëriñ bi la wax loolu nee ko karamba nee na waxoo dëgg bu la nga kole ñaari filo yi voilà. ban heure lañ ko rab heure lañ ko ko war a mën a dindi si nit amul heure. si bu dee bu dee si karamba rab heure bi ñu ko war a dindi si nit bu dee si karamba amul heure xaw nag bu dee si beneen sëriñ man bu dee si man dama la naan taale sa téléphone yaa ko fi indi lan la rab nga ne ma waa man la taale sa téléphone nga taal ma génn ko léegi say bët ngay gis si mu neex ak mu naqari yàlla kese moo ci man dara du kenn. léegi léegi laa koy def te li may boo ko gëstoo boo demee nga jël vidéo i nga collé ak sa vidéo bi ngay dugal. <laughs> mais gis nañ benn vidéo boo defoon mu circulé ngay génnee rab ci nit muy yuuxu pourquoi bu rab bi di génn <laughs> parce que li tax muy yuuxu mooy maanaam yuuxu ba muy yuuxu du moom rab bi mooy yuuxu gis nga rab boobu di yuuxu loolu mooy waral kam loolu mooy waral kam rab. tey mën na ñëw waxloo nit loo xamante ne tey bëggu ko loolu moo waral tey ji kam rab mën na euh, jël paaka xaruloo nit kooku jam boppam dee te fekk gënalu ko fekk rab bi moo ko def kam rab mën na gis koo xam mën na am koo xamante ne tey maanaam mën na ko solo mu jugee si kaw terrasse tëb daanu dee ñu ne daa xaru fekk xaruwul rab ba moo ko téye di ko manipuler rab mën na def loo nit lu ne si àdduna rab am na ñoo xamante ne tey ñu ngi sëy mënuñoo mënuñoo fexe ba am doom fi ñuy sëy am na ñoo xamante ne tey ñu ngi bëgg jëkkër mënuñoo fexe ba am jëkkër far bu ñu am. bare bare bare ba fii si émission bi sax day xeeñ émission bi ñàkk am jëkkër ji mu ngi fiy xeeñ. ñàkk am jëkkër ji kan <laughs> la ñu ñaari jigéen ñoo fi nekk <laughs> ah, non dama lay kam rab li mu mën a def si doomu aadama ah. rab dina tëj sa buntu wërsëg mhm. ba yow foo jub mu tëju rab. dina def bërëb boo nekk nga xamante ne tey da nga fay liggéey wala benn affaire ñu jël la fa wala benn affaire rab mën na la fa yàqal indi kam maanaam mer loola ba nga def loo xamante ni waroo ko def wala mu wax loola loo xam ni waroo ko wax wala mu jëf loola loo xam ni waroo ko jëf te fekk yow du sa coobare rab bi moo la ko def loo ba nga yàqule après boo demee toog ba benn diggante dangay toog di réccu loolu man lan moo tax ma def lii mm, loolu rab doo koy def mm-hmm. rab doo koy def loo xamante ni tey boo waroon a tukki déposer ay kayit sax day mujjee yàqu parce que rab bi kay def lan la tey soo toogee ne man damaa xiif wala man damaa war a lekk ceeb wala man damaa war a lekk hamburger yow li ngay xalaat sa xel mi moom mu ngi koy xam su dee ku jóg pour yàq yow bala nga sew jublu mu yàq loolu. loolu moo sonal ñu bëri fii nii voilà li la siy dimbali mooy loolu mu jóge fa ba mën a tey bañ a capter li nga xamante ne tey moo nekkoon sa bopp bi voilà. gis nga man maa moom làmb. man man làmb maa ko moom maa moom làmb parce que man damay dund cosaanu làmb damay yëngal man man damay yëngal tey bala maa gi noonu mën a liggéey sax nga tegal ma làmb wala benn affaire géej naa dakaar nag li ma fay gëj mooy drapeau Albouri bi ñu ma tudde woon Albouri ak dara jara de géej dakaar man duma ma génn man duma dem fen man nii may liggéey xam-xam bi moo may jox may lekk moo may jox may naan su ma nit ñi gisee maa ngi lekk su ma nit ñi gisul maa ngi naan comprendre nga maanaam lii ma nekk nii man moo ma ñor nit ku nekk am nga lu la ñor am na ñoo xamante ne tey di feeñ si vidéo di fen mooy tax ñu lekk wala mu tax ñu naan te loolu dafa bëri si réew mi Sénégal dafa bëri ñuy yàqante Sénégal boo gisee sawaratuma si réseau yi lu bari ma wàññi ko Sénégal dafa bëri ñoo xamante ne tey dañuy yàqante Sénégal dafa bëri ñoo xamante ne tey luñ la xamal rek dañ koy jël denc dañ naan bis dina jot dama koy génne si réseau yi wala benn affaire ñu bëri ñoo xamante ni tey loolu moo gën a jaxas suñu Sénégal kon réew mi ñu nekk nan la mën a amee jàmm. Mhm. waaw am na ko yi taxaw Balla gay 2 moom sa xarit la Karamba mu war a bëree ki nga xamante ni mooy Tapha Tine mu nekk revanche nag boo xamante ne ni tey ku xool Balla Gaye numéro 2 ñu ne Balla dafa yàqule ci làmb mënatul mënatul daan mbër actuellement nii noo gisee Balla ma gisee. <laughs> no Balla moom jàmm rek lay am waaw Balla moom jàmm rek lay am te làmb jooju ngay gis noonu bu ci karambaa kese desee Balla Gaye day am ndam man kese bu dee man kese maa ci des man kese làmb jooju bu dee man kese maa ci des li ñu warlu man ñu def ko waxuma dara de mais téléphone rek ma jox ko ndam. téléphone nii kese ma jox ko ndam. barki Serigne Fallou Mbacke Balla Gaye it oo ma téléphone karamba ndam laa bëgg kese. xam nga Balla Balla dañuy déggan téléphone dina ma oo mu jël téléphone mu woo ma nii Karamba ndam laa soxla barke Serigne Fallou ma jox ko ndam. hey Balla Gaye man mbuur gi ma dëkk ñëpp xam nañ ni Karamba Balla Gaye mooy mbërëm musuma kaa liggéeyal si làmb nag musuma liggéeyal Balla gay si làmb am naa droit bëgg kam mbër kam ni gars yi amee mbër kii faral kii kii faral kii parce que bëri na mbër yoo xam ne bu ñuy bëri dama leen di faral mais Balla sama mbër la. Mhm. Balla Gaye sama mbër la bokk na si mbër yu ma njëkk di dégganteel téléphone appel vidéo mais doonul dama kaa mos a liggéeyal wala benn affaire mais combat bi li ma ko sas moom téléphone am kese lay jël karamba ma ne ko Balla mu ne ma waaw mu ne ma ndam kese laa soxla barke Alaaji Fàllu ma jox kon jox ko ndam li mu téye si ay loxoom te far fos su ko defee day am. mais karamba li nga wax ne ak ñu ne Balla Gaye mënta daan ba dafa yàqu nga ñëw taxaw wax lii. na ma woo su jëlee téléphone mu woo ma mu ne ma karamba ndam kese laa soxla ma sasoo lépp. lu siy misil maa koy sasoo lu siy yàqu maa koy xalab lu siy defaru maa koy defar te su ma defee kenn du dindi su fab ma jaabel Simbo Taraware ndele Taraware ceenodi karamba i fokoli kumba i fokoli daba i jamiñankoli kori bara koli bara la fe andi fere fe kur la ni kur la simba karamba ñaalu wulu fa ñaaba jato tigi basi tigi ñanco tigi ya fenjugu ya fenjuma karamba cewo ce muso muso nafula sako bama warima sa ko bama basiru ba ko bama basiru bama ko bama cigi dan soko anin ko karamba ce o ce kondaron muso muso kondaron ya fenjugu ya fenjuma karamba sisa wulema sisa fima sisa koyma a ba bee ke awnu danso karamba ni basili di ni joli di karamba mba ke sansan karamba mba ke sansan karamba mba ke sansan karamba tu bismillah tu bismillah sante kumre ani womte kumre karamba ta ani sisi ta ani sisi ta ani sisi ta ani sisi ta ani sisi karamba tous les mondes karabakana ministre karabakana député karabakana présidente karabakana tous les mondes karabakana ni basili diini jooli di karamba cent cent cent cent karamba cent cent yi léegi léegi léegi léegi su ma ma jox ko ndam man xam nga sama affaire man làmbu yàlla dimbali na ma fasalu ma sama bopp si làmb mais musuma yóbbu mbër si làmb mu am defet te li may wax ni ay mbër dinañ ma seetaan man mosumaa jël mbër yóbbu ko si làmb mu am defet wala ma ñaanal mbër mu dem ñu jox ko defet mm-hmm. non non mosul am si làmb mm-hmm. làmb man maa si desee concentré wu mais tey kuy concentré wu si xëccoo football wala leneen wala rawante wala benn affaire làmb mën naa ko mm-hmm. mën naa làmb làmb xëccoo la mën naa làmb bu baax a baax a baax a baax boo gisee nag bëgguma see sori xama wala benn affaire man maa toog ma ni tekk bàyyi làmb ji parce que làmb ji boor bi mu féete ak boor bi ma nekk jot bi laa amul voilà. noo gisee Modou Lo ak roi des arènes bi. Modou Lo. mu yoree roi des arènes bi mu ne euh, day bëre ba mu neex ko mu bàyyi jox ñoom Franc ne day bëre. ba mu neex ko mu jël roi bi teg ko biir parcelle jox ko ñoom Franc ñu def ko tournoi. ku wax loolu. <laughs> ah xëy na li nekk ci xelam la wax rek. loo moom. man moom Modou boo gisee bëgguma sori si ay kaawam mootloo Lo moom champion la xam nga nit ku baax la te Modou soo gisee du mu bëgg di wax ci moom wala benn affaire moom borom baax la quoi Modou Lo te mu ngi wone bon exemple Sénégal Modou mu ngi wone bon exemple Sénégal te bu dara saa Touba bi ànd ak Modou saa sama doomu ndey la saa maa moom benn lañ saa Touba sama gaañ la moo tax mootloo Lo ay kiiwam du ma si bëgg di wax wala benn affaire voilà. komba boobu combat tege dege la. tege dege. tege la. tege dege la. Ah. te barke Rasulullah bu arbitre bi ne nga xam ni combat tege dege la. tege dege la la woon gerte. buñ ko wole mu jox la lan. combat tege dege la. foo teg ne combat tege la. tege dege la. te barke Rasulullah ji di nga xam ne lii combat tege dege la. tege-dege boobu na ngeen ko dagg ngeen denc ko nee naa leen combat tege-dege la te barke Serigne Fallou Mbacke tege-dege la gerte gu ñu saaf ba pare wal ko def ko tege-dege. monsieur loolu bu làmb ji avancé dinaa la wax kàlla mais bëgguma yàq làmbu jàmbur parce que man du ma bëgg di wax si làmb ay kii woy daan wala kee way daan mais làmb yii nii mën naa la si wax lu leer combat Balla Gaye Tapha Tine mën naa la si wax lu leer combat Eumeu seen ak kii nu mu tuddati Sa Thiès mën naa la si wax lu leer ak kan ak wax la ki yor ki nga xamante ne tey mooy doon président Sénégal déggoo li ma la wax man naa laa wax ki nga xamante ne tey mooy doon président Sénégal soo gisee léegi ma wàññi wax damaa dem ba soxor yenn soxor yi ñoo tax man léegi sax da ngay boo waree wax sax da ngay tiit dootoo bëgg a wax parce que man du man man miin naa coow mais. ñi ma wër ak samay parents wala benn affaire mais mën naa laa wax koo xamante ne tey jii mooy doon président Sénégal te barki Serigne Fallou Mbacké mooy doon président Sénégal. billaahi wallaahi tallaahi barki Serigne Fallou Mbacké mën naa laa wax kii doon président Sénégal. yow yaa wax. yow sa xalaat nga wax mais mën naa laa wax ki nga xamante ne tey mooy doon président Sénégal. mooy doon président Sénégal da ngeen a dof rek jéen da dof rek moo tax man la yuuxu dina jóge fiñ ko fooge mais yuuxu dina jóge fi ñu ko foogee barke Serigne Fallou Mbacke gis nga yenn politiciens yi ngay gis nii ñu bëri ñu ngi nekk di xaabar xaabar ñu ñu ngi kii maanaam ñooñu duñ am dara Sénégal duñ def dara Sénégal maanaam duñ sax sori. bu doon dañuy lim kam lim nii kam ku nekk ay vingt ngay am ñooñu dañu am un wala bu ñu amee un si la ñuy yem jaru ñuy sori di yàq seen xaalis réew mi ki ko war a yor yàlla valide na ko ba pare. yàlla valide na ko ba pare maanaam tey loo bëgg a doon lu nit bëgg doon kii nuñ koy waxee loo bëgg a doon taalibeem loo bëgg a doon kii sëriñam loo bëgg doon sëriñam foo nga doon taalibeem boo doonul taalibe mënoo doon sëriñam léegi doon nañ taalibe bi lan moo des pour ñu jot a doon sëriñ sëriñ bi lan la billaahi wallaahi wal kitaabi far fos loolu day am man maa ko wax nii direct en direct président Sénégal instant bi ku war a yor Sénégal nekkul si jàmm. instant bi ki doon président Sénégal billaay wallaay tallaay nekkul si jàmm président Sénégal. instant bi président Sénégal nekkul si jàmm ñi nekk si jàmm ñëpp man maa la ko wax kenn du si président Sénégal ñi nekk si jàmm kenn doonu si président Sénégal instant bi président Sénégal nekkul si jàmm. kenn da xam ne nekkul jàmm ci kaso ba tey muy kan yow yaa wax man damay junju rek déggoo li ma la wax man damay junju instant bi président Sénégal moom nekkul si jàmm ñi nekk si jàmm ñëpp duñu dara. ki war a yor Sénégal mu nekkul si jàmm loolu laa la mën a junj parce que waxkat yeeg soxor yi man yàgg naa bëgg di wax man ay politique du ma si wax wala benn affaire mais Sénégal ki ko téye si loxoom nii. billaahi wallaahi tallaahi bu nee bërët bu nee bërët bi noo bërët billaahi ñu xam ne ba si góor moo koy bay di nga gis ñu cuub seen drapeau parce que man maa ngi gis ay images yoo xamante ne tey. ay kilifa yoo xam ne ñu ngi Sénégal ay kilifa yoo xam ne après dañu mujjee wëlbatiku nit ñii du ñoom te li may wax nii soreetul te dina am barke Serigne Fallou Mbacke billaahi musuma see wax te lii may wax nii far force day am ñii di ndaataatal la ñii ngay gis nii ci état bi nii kenn du si président Sénégal xam nga Macky moom matal na moom si ay waxam nee na day dem si ay waxam moom nee na day dem mais à part Macky Sall ki war a yoraat senegaal du si ñoom ñooñu ñëpp li ma lay wax utal fu la neex nga bind nga takk ko te bu nee bërët bu nee misil bu ñu dóor si dëkk ñëpp dañ koy yëg far foos parce que réew mi moo toll foofu réew mi moo tollu foofu réew mi moo bindoo noonu te rawaanu réew mi xam nga tey da ngay dem mbuur ñu ne am na rab nga dem ay Dakar ñu naan ay lëg daawur wala benn affaire mais dafa am rab boo xamante ne spécial mooy rabu Sénégal mooy rabu dëkk bi te rabu dëkk bi moom moo bëgg lii kam doxalin bii nii war a am pour ki war a doon président Sénégal wala benn affaire rabu dëkk bi moo ko sàkku te lim sàkku ni après lépp ngëneelu Sénégal la loolu mooy fànk lu bëri Sénégal pour fii jàmm am si réew mi loolu man maa la ko digal maa la ko wax fii mi toog si àll bi voilà. macha allah am na solo ay ca euh, Karamba dañuy jeexal ci lenn mooy sa digganteeg 5 tonnes da daan gis mu nekk sa xarit léegi gisatuñ la ak moom lan mooy seen problème yéen tonnes moo war a tey mu régler boppam cinq tonnes cinq tonnes moom dafa war a dal mu régler boppam parce que damay gis ay musiba yu bëri yu gars yi di xëpp ci kawam yu si bëri man maa koy dindi cinq tonnes. mu musiba yu bëri yoo xamante ne dañ ko koy teg ba mu war a ñëw misil rël si kawam ma ma laxasu si kam jaan bu si laxasu hmm. na maytu boppam man maa man maa man maa ko wax loolu moom cinq tonnes cinq tonnes bu dee yaa ngi may dégg géej nga maa dégg géej naa dégg nga wax wala benn affaire maytu sa bopp man nag damaa xeex a xeex a ba damaa sonn maytu sa bopp sama gaayan nga gëj nañ déggante gëj a déggante bi yëpp ay musiba la woon yoo xamante ni tey sa kaw na nga maytu sa bopp bu baax a baax a baax 5 tonnes man maa la ko wax te fii ak une semaine maytu sa bopp 5 tonnes une semaine laa la may na nga maytu sa bopp yow 5 tonnes semaine laa la may 5 tonnes na nga maytu sa bopp. billaay wallaay tallaay boo jëlu sa téléphone yow 5 tonnes nga ooma di nga gis lu garaaw fii ak une semaine voilà. ah man de loolu moom dinaa ko woo téléphone wax ko pour mu woo. Ah, xaw ma de fii ak une semaine moom 5 tonnes. bu jëlul téléphone am mu woo ma moom dina gis lu garaaw wala dina jekk saa yi xam nga mënuñu la wax lépp mais li ma lay wax nii mu ngi ñëw far fos na jël téléphone am woo ma ma wax ko sarax bi 5 tonnes su ma oowulee téléphone ma wax ko sarax bi far fos une semaine laa la may day gis résultat bi voilà. a dal. foofu laa yem. yaakaar na nag dama kaa bañ te bañu ko. Mm. maanaam moom si boppam yaakaar na man dama kaa bañ te bañu ma ko maanaam ku ko bëgg laa maanaam dama koy geeral si lu ne mais lii ma ko wax nii lu ma gis la parce que maa la si junj sànq moo tax nga waxaat ma ci waaw pour ma jàllale ko mu leer dem ba léegi si laa fanaan ba bët set voilà. mais mais est-ce que nekkul waa géejawaay comme ça mbëri géejawaay yi nga xam ne jubóowuñ est-ce que tamit nekkul seen seen coalition yi tamit déggoo li ma la wax bëri nañu koy jéemal moom 5 tonnes. ci moom cinq tonnes bëri nañu koy jéemal te dafa xaw a am sens parce que li tax li ko xaw a am sens maanaam tey li muy bon yëpp cinq tonnes du sëriñ du dara mais amuy ak aaya yoo xamante ne balaa tëdd si lal doo koy tari des fois yooyu moo koy dimbali à part li si des yëpp misil yëpp maa koy xalap muy dem yoonam hmm. voilà. mais ñu koy jéemal euh, si biir géejawaay la nekk. 5 tonnes ñu koy jéemal am na ñu ne géejawaay am na ñu nekkul géejawaay. ay déggoo li ma la wax tànkam sax tubb nañ ko maa si dër. moom du ko nettali. du ko nettali moom 5 tonnes du ko nettali. tànkam sax tubb nañ ko. ñetti fan manul nelaw. bii nag man maa ko joxaat alerte boo xam ne xaw ma alerte alerte lañ koy wax une semaine na sóor boppam wala mu jël téléphone mu woo ma moom 5 tonnes. su ko deful dina gis musiba ci kawam bomb. mën man. ah man yoratuma numéro am su ma oowee baax na su ma oowul. moo xam xaw ma yor na sama numéro xaw ma yoru sama numéro parce que man gëj naa ko gis gëj naa ko dégg xamatuma si lu mu nekk mais en tout cas dama bëri lu may capté ay image am quoi xaw ma nag lan la mhm. voilà. te fan gis nañ ko mu yor oto may nañ ko chambre à démb bu yàggul. loolu kañ la. démb may nañ na mu waaw loolu yëpp pexe la rek ay pexe la moo tax man la na jóg si boppam ba am leneen balaa am leneen lu si laxasu li ma lay wax nii xamaana moom bu déggee lii moom 5 tonnes dina ma oo direct parce que xam na ma xam na li ma capable moom 5 tonnes xam na ni Karamba du waxantu su ma ko newoon suba nga jënd percal suba day jënd percal fanaanoo ko moom 5 tonnes moom xam na ma bu baax messi billaay wallaay tallaay su ma ko waxee tey lii ma lay wax nii boo ko waxee balaa guddi mu oo ma barke Serigne Fallou Mbacke balaa guddi mu oo man du ma waxantu man aw ma jotu aw ma jotu nekk si média gis média mën naa média ci lépp sama bopp am naa YouTube am naa TikTok am naa lépp te ay ñaata personne ñooy abonné si man mais maa ko wàññi. ma tey ni ma toog def émission mënoon naa def sama téléphone bii live ñaata personne ay 500000 abonné laay am ñëpp dañ may seetaan mais soxlawu ma ko li ma soxla mooy kam ñii émission bi may def ak ñoom su ma paree pare naa ci ba keneen ñëwaat mais doonatul émission yoo xam damay jël sama téléphone di live wala benn affaire sama jot mayatuma ko. temps bi mayatuma ko parce que liggéey bi léegi moo laaj loolu da ngay làqatu di liggéey defar sa avenir boo gisee kër gu baax jënd boo gisee loo man a tabax tabax boo gisee. ma comédien wu ma simbu ma gaynde ñoom nañ préparé ñoom ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk dakaar si ay ay kàddu ay làmmañ di wax rek wax wax ku dàq wax sa moroom nga ni kii ku gën a neex làmmañ sa moroom nga ni kii ku dàq communiquer sa moroom nga ni kii te defaluñ société société Sénégal dara. xam ngeen boo gisee ñenn ñi commencé Sénégal léegi bëri maa yor jinne wala maa yor lii parce que ñoom ñenn ñi ñoo tax ak yenn kilifa yi ma noppi moo tax ñenn ñi commencé génn mais heure bi bu fekkoon ñu bàyyi ma commencé génn ba commencé leen a tubbal ci xorom si barki seriñ Fallou Mbacke ran bi dina jub te su ma duggee Dakar yéen simbakat yooyu nekk dakaar laay waxal xaw ma ay simbakat ngeen waxuma simbu yi simbu si yéen sëriñu simbakat yooyu yéen sëriñu simbakat yooyu laay waxal ak borom ngandi kaala yooyu laay waxal ak borom ngandi xaw ma nuñ koy waxee seen ngandi ans xaw ma seen xaw ma ay sëriñ ngeen xaw ma ay lan ngeen foo leen toog da ngeen di di wax rek sonal ngeen ñin ñi communiquer wax Sénégal wajajaja waj diw day dee diw day lii diw day fu ma leen fekk dinaa topp sa merci beaucoup Karamba jërëjëf kontaan nañ ci ñëpp tey nag moom lañ dalaloon comme euh, espé euh, comme comme invité tey fekk si fi nga xamante ne mooy Mbour fi mu dëkk macha allah di kontaan ci moom baax a baax di ko jaajëfal di kontaan ci suñu mbokk into ñi bàyyi xel di suivre di jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp saa su nekk ay saa laa ci àndal moo ne ci li nga xam mooy cadrage bi ngeen ci ànd ak ayaa ma dëgër mu sóor kontaan nañ ci ñëpp jaajëfal nañ ñëpp waxo beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf